yéesu def ngi lay may nga raxas sa xol te nga jege ko ndax nga nekk nga bokk ci njabootam léegi na ngay def yëkkatil sa bot te nga topp yéesu dina la may nga dund te doo dee mukk yéesu daldi dina ñu boole ak yàlla ñun bokk ci njaboot u yàlla nekk benn ak moom soo gimee ci yéesu dinga lekk léegi dinga nekk léegi ci njabootu yàlla te faw nga sopp yàlla te nga nekk nit ku am ci sa dund te bokk ci njaboot bi yàlla fal jaare ko ci sa ngemu Jésus Christa mi nga xam ne yiw la yàlla jaarale na ko ci yéesu mu fay lépp suñu bër bakka